donc ñun dañu war a dérouler suñu programme sa programme euh, euh, euh, AJE mooy programme bi nga xam ne moo ñu jëlee ci catastrophe bi nga xam ne ci lañ fekkoon Sénégal un pays en comment un pays c'est-à-dire à secteur yëpp am problème ñu nekk ci rattrapage loolu noonu c'est le PSE moo ñu may ñu mën cee génn yaa ngi dégg ñu mën cee génn boobu ak léegi mm. n'est-ce pas PSE boobu noonu moom la ñuy dérouler aujourd'hui pourquoi ñu war a def focus ci ay mandature bu président Macky Sall alors que moom dafa te ay chantier yoo xam ne ñun ñëpp xam nañ chantier yi ban envergure la am ñëpp a ngi ciy teg seen bët mu war a fexe ba loolu continuer aujourd'hui dañu nekk ci crise muy crise mondiale pourquoi parce que Covid dafa jaar ñu jógee ci Covid guerre russe am donc président Macky Sall bu demee ba ne 2023 dafa koy def une année sociale c'est parce que xam nañ ne. dëkk bi metti na tartar yi bari na. merci loolu mooy suñ programme xam nga la mooy suñ programme. fexe ba président Macky Sall mën a continuer lii nga xamante ni nii mooy trajectoire bi mu nekk pour que suñ économie mën a. léegi une seule question.